nee gis na ku dul julli suba doo am leeru kanam nee na julli tisbaar ci waxtoom nee na sa wërsëg du bari wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayidina wa mawlana muhammadin alfaatihi alxaatimi annaasiri alhaadi ila siraati llahi almustaqimi وعلى آله وأصحابه صلاة تعرفنا بها إياه إخوة الإيمان والإسلام والإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته neena noo أمار سنتي الله yàlla ci may gi nu ñëwaat ci guddi gu tedd gi fa tabaarakallaahu ci woote Cheikh Seydi El Hadj Malick moo waxoon ni mag mu amut lu génn dëkk di ko wax ci at ci génn guddi su ma sañoon ko ma njabootee nga fekke ah yàlla may nu nu fekke ko yàlla bu nu ci benn yiwu guddi gi damay wax ni ki ñu ko wooteel ëpp na waaye ki ko woote jar na ko yonent bi lañ ko woote ëpp Seydi Hajj Malick moo ko woote jar na ko ñu jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdourahman Gadiaga toogal fi xatrata al muxtaariya léegi la agsi ma ni ko yow sama moo la fi yabal tabaarakallaahu maa ngi koy wax ci bëccëg jigéenam bu baax bii ma ni ko samaam su mosaan ñëw gàmmu Tiwaawan fekk ñuy ràng sëñ Babacar Si bu ñu ko informé xalifa danaa nañu dagg rañ bi ba ma recevoir Cheikh Muxtar dugg ak moom une heure de temps deux heures de temps trois heures de temps wax moom li muy wax moom ba pare fekk pare nañ ko daluwaayam ca kër Cheikh Alxaaji Mansour Si fa lay dal kon diggante dingiraay ak tiwaawoon jataayam bi tànki maamam yooyu rek la topp si te sax ca Cheikh Sakkoki la woon Cheikh Sakkoki moo magoon Maodo ci ay at ci liyet naa Cheikh Alxaaji Omar yi la bokk moo tax keroog bi ko Maodo di keroog bi ko Cheikh Alxaaji Omar di jox secret tariqa bi كيلوكو تود سيد الحاج مالي إمام ملك دولي بكر أقل أقل أقروح أخمي سني بكر أك سني خل أك سني قل أك سني روحي من جي فكي bu dee la cay bakkan ci bakkanu yonent bi bu dee la cay xol ci xolu yonent bi bu dee la cay xel ci xelu yonent bi bu dee la cay roox ci rooxu yonent bi uyuunul arwaax la Maodo wax lu mu ca teg uyuunil arwaaxi min nuuril udan ba jazaat fa innahu جنس الهلا معدن وزتوبي تبارك الله الإمام الشيخ الحاج عمر بن وهان مام الشيخ ساكوكي dañu ko man maay ruuj bakkan man Cheikh Alxaaji Omar ni ko Cheikh Sakko ki yow yaay ji xol yi ni ko Sidi Xaaji Malik mi ngi ñëw موم موي باي خيل لا كولتور موتاخ ايريتاج بوبو لما باي الا يا بني هذا الزمان دعوتكم لاحياء ديني نمتت بالعلوم اجيبوا شال حاجه مرنيكم من ما يروج بكني yow Cheikh Sakho ki yaay bay xol yi moo tax fii ba Gàmbi daf daan dem di tuubal nit ñi di leen dugal ci lislaam bi ni leen kiy wasaare ji tariqa bi mu ngi ñëw si alxaaji Omar ni ko kii ñëw di Mali moom mooy bay xel yi mooy jàngali nit ñi moo tax mu ubbi université Njaarnde ubbi université Jaksaaw Gosaas Tiwaawoon formé huit cent trente cinq mu at jàngal leen ba kenn ku ci nekk mën a doxal sharia mën a doxal tariqa mën a doxal xaqiqa mën a doxal siyaasa mu def décentralisation nag alaaji rawankay dellu gànjoon aliyoon Diop Maymuna kaay dellu gaaya qaadi alin jax kay dem tëngee xam naa mooy suñu maamu soxna su tedd si ànd ak soxna Zaynab góor gi Jibril Jéen kaay dellu Wakaam alaaji Pedre Diop kaay dem Plateau alaaji Cerno Kanji kaay dem Njaari alaaji Ibrahima Taal kaay dem Bambi ba Sénégal daj mu songu Afrique Alaaji Babacar Dieng kaay dem centre Afrique Alaaji Ndari Mbay kaay dem Gabon góor gi ma jéy jéy kaay dem Congo Brazzaville ba Afrique daj kon bay na xel imaam yëpp di wuyoo lante moom it mu nekk fi ba juróom-ñaari at dese ko ki war a góob ruux yi ñëw na fa jaadat li ruuxi bi sakinati ruuxuhu wa ayatu arde lam tajix bi wufudiha te ki war a góob ruux yi mooy sëñ Babacar Si moo tax bi mu fi bi mu créé daayira en 1927 am ñu déggul woon ni Maodo bàyyi ko fi mu ni man mi fi Maodo bàyyi maa ko santaane dal di yëkkati juróomi baaraama yu tedd yi ni képp koo xamante ne aju nga ci man sama juróomi bu manqué seen diine seen tariqa seen métier seen daajira ak seen yoonu Tiwaawan yoonu Tiwaawan nag tey la kon liggéey boobu yéen ñi sëti mag ñu baax ñooñu continuité la rek Cheikh Alxaaji Omar moo wax ni maa ngi ruj bakkan yi Cheikh Sakko ki maami kii war a bay xol yi Seydi El Hadji war a ji xol yi Seydi El Hadji wax na ko léegi ji ko jikko mooy li nga ji ci xolu nit kenn li muy liggéey lañ ko àbbal man di xam jikko moo koy wax démb fii ci salle bi walla boog ci néeg bi man leen li ñuy wax tabixatul xaal ci nit ku nekk moom ngeen wax la la nature profonde de l'individu tabiatul xaal dafa am code booy jàllal ci sa bopp pour mën a jot ci sa bopp ndax loolay nit mais code boobu boo ko jàllale ci sa bopp ba ci sa tabiatul xaal benn réponse rek la la sa bopp di wax ci sa bopp te la Moi, la vie n'est pas d'avoir ni obtenir mais être et devenir L'on pour Namako, il faut faire le bon le bon choix en soi C'est le bon choix moi, il y a qui bi moo tax Maodo tànn ko tànnal nu ko noppalu wóoteelul boppam wóoteelul baayam wóoteelul maamam bi mu ñëwee mu ne ki yàlla wooteeloo moom lay wooteel su boobaa wóote dama jot te moo wax ca xajjatul widaa ni na ma kenn ku nekk jot bi donte la benn aaya waaw kooku gàmm gàmmoom kii naka la mën a nekkee bidda mënul nekk wóoteelul bàyyeem wóoteelul maama mu ni ki yàlla wooteloo moom lay wooteel te su boobaa wóotewuma dama ko jot te moo wax ca xajatul widaa ni jullit bu nekk na ma jottali sama risaale gi donte la benn aayal wala benn xaddis mu woo Sénégalais yi ñu ñëw mu di leen wax yàlla di leen wax yonent bi nga taxaw ni biddaa la foo koy teg xanaa kon yow li ngay def biddaa la ndax da ngay jottali rek su ko defee nag imaam wax na ko léegi ki yàlla wooteloo moom la Maodo wooteel waaye kooku lu mu indi xam-xam ak jikko ñaari xaddis yépp weer yónni wuñu ma lu dul ma ñëw jàngal leen yónni wuñu ma lu dul ma ñëw mott li jikko lu tax mooy xam-xam mooy doxal àddina waaye yar mooy yor àddina mu wàcc téere boo xam ni def yi na xam-xam yëpp muy alquran pour mu war mu jàngal ndax nu mën a yor ak ñu mën a doxal àddina mu yónni yonent bi pour mu yar pour nu mën a yor àddina ku bëgg a doxal àddina dangay xam-xam nga koy doxal waaye ku bëgg a yor àddina ju jag yar nga koy yor moo tax xalifa bu tedd bi Serigne Babacar Sy Mansour radiyallahu anhu ñu ndokkeel ko ci jumaay ji يالنتي جولي وات اتي بري موما ركامي دومامي مقدمامي جولي تيالي وحني نانيو ريفيزيتي وات حديث بوبو تي غامبو بوعيستو لي اوتاليما مكارم الاخلاق نينو وخول ني يوني نانيو ما جيكو داني داني ما يوني بور مو موتي ني جيكو كون جيكو امون yàlla jox ko trois cent soixante vertu ñu jóge kaw asamaan yàlla di ko waxal jullit yi ni leen ku ci am benn fexe ba rendre ko opé opérationnel ci sa dund dina la lonk ba daane la àjjan Seydina Ali nag am na lu mu waxoon al adab laa yu baayu laa baaxul wala yustara bal bal huwa taabiun fi fi qalbi kulli man tarabba nee na jikko ju kenn du ko kenn du nee na day xëy rek wàcc ci xolu ko ñu yàq ba tax bu amul kilifa doo dem mu teg ci sax ni fa laysa al faqiru man faqada zahaba nee na ki ñàkk du ki ñàkk xaalis wa innama al faqiru man faqada al axlaaqa wal adab nee na ki ñàkk mooy ki ñàkk discipline ñàkk jikko bu amoon ay milliards it nee na amul waaye nee na boo amee yar nee boo amul xaalis it kenn du la boole ci faqir yi faqir dëkk mooy ku amul discipline amul jikko kooku su amee xaalis xaalisam da koy mujj rek dugal prison wala mu dugal ko safara alxiyaasu billah yàlla nañ ci yàlla musa kon abdourahman ñoo ngi lay nuyu yàgg nga àndal ñëpp fa tabarakallah su ma ko nuyoo mën na ma ci dëgg nuyu góor ñëpp suñuy ñaari président yi président Cheikh Al hajj Omar Ly di président daïre bi président imam Mahone ci synthèse bu am solo bi mu indi ci temi burdu bi di président marche Mouhamadul Bachir Tall sos daayira bii bokk ci ñi ko sos dagg bi ci Belgique pour fekk si gàmmu gi Serigne Doudou Fall di suñu mag di suñu goro ñëw représenté njaboot gi yëpp ak sëriñ Alioune bi fa tabaarakallaahu ñu nuyu jigéen ñi waaw su ma nuyoo soxna Zaynab ak sunu jigéen bu baax bii léegi ma wax naan xaaji Alioune Dia mooy maamam ak suñu yaayu daayira yu tedd yi nga xam ni at mi it muy taw muy naaj muy guddi muy bëccëg ñooy jàpp ci loxo xale yi fu ñu nekk ñu fekk leen fa di leen encadré ñu toog nii fa tabarakallahu ñu nuyu leen ndokkee leen ci guddi gàmmu gi nuyu sunu jigéen bu baax bi di xajaan dumbe jóob لمي دف كي الإسلام بي ديكو دف كي الطريقة بي ديكو دف كي حضرة سيد الحاج والد نيب بجسدني يالنا كو يالنا يوك يالنا كو يالنا ويرن أك فاميل يبن بي يسال نجال داك بريكي ديم بريك لبن سير جن عدنا دي سخنا مام كومبا جوب yàlla na xeppee ca aljana ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ma léegi ni benn sëram mi ngi fi toog moom itam ñu ngi koy nuyu ak mag ñi mu àndal ñëpp waaw danaay miin seeni kanam waaye xañ na tur yi moo dul demee noonu ñu nuyu leen ziar leen nuyu invité yëpp sunu wëllër yëpp ngi nii toog fa tabarakallahu ñëw bokk ak ñun gàmmu gi loolu nag bég nañu ci waaw dañuy wax ni lislaam su jigéen taxawee rek rànkoo ñu lislaam fer waaw awalu man sakkanal xarama ku jëkk a dëkk màkk kan moo sañ imraatu jigéen وهي حاجر waaw awalu man amana bi rasul sallallahu alayhi wa sallam kan moo jëkk gëm yonent bi imraatu jigéen waxee soxna Khadija waaw awalu dam sufiki fi sabilillah l'islam damu imra imraata dereti jigéen wa hiya summiya mooy yaayu Ammaar moo jëkk tuur deretam ci lislaam keroog bi ñu ne ko weddil yonent bi mu ni duma ko weddi ñu ni ko weddil yonent bi mu ko wetti ñu ne ko dañ lay rey ñu jaaxaanal ko jël benn tànkam takk fe jël benn tànkam takk fe écarté jël benn loxoom takk fële jël benn loxoom takk fële ni ko weddi yonent bi mu ni duma ko weddi ñu jël benn xeej takk fi pëyam منان الله واحد محمد رسول الله بس بقول كوكو جيجين تيجان تبي وقتنا في خطبة الوداع وكررها سلاسة مرات كانت أجو تاكو توبا ربتنا نتيون يون موم يونتي اوسيكم بالنساء خيرا maa ngi leen di dénk ngeen jëflante jigéen ñi yiw moom la yonent bi mujj a dénkaat te dañu wax ni la meilleure façon de prier pour quelqu'un qui n'est plus là c'est de respecter sa dernière volonté kon respecté dernière ngi koy wax léegi aadama ak xawaa bi ñu nekkee àjjana te ñu fàtte xam nga dañuy wax ni tooñ jigéen ñi ñu ne Adam a été corrompu sentimentalement par son épouse jigéen moo laalloo Adama garab mais kooku c'est faux yàlla mi ko fekke woon nee na Adama maa ko tere garab bi mu fàtte ko laal ko daf ko fàtte yàlla wàcce Adama ca Inde wàcce Hawa ca Jidda wàcce jandi ca Bagdad ñuy wërantewaat ba dajewaat araf fi aadama di yéeg montagne bi seen xawaa moom sonn na wër na aadama mënatul a dox ngi toog ci benn xeer aadama daw ñëw kott ko fóor ko ni ko yow sonn na bi yëpp dagg naa ko dina seet waaw xanaa li ci gënal moom itam mooy wallaay may tam na naa boobu léegi maa ngi seet waaye am ko ah toog ko fi moo jur sunna yi bu góor man na romb xale bu jigéen mu bëgg ko ni kii de su ma mu nekk sama borom kër waaye mu wax ko ko ak mu rey ko la yàlla moo tax góor mooy takk ay dàllam dem seeti ji waaye ba ñu àndee aadama commencé di jooy xawaa ni ko waaw looy jooy mu ne ko dama xiif dama mar dama tàng xawaa ni ko kon de il faut liggéey yàlla daal di yabal benn graine coton jox ko Seydina Jibril mu daal di koy ji ci sotti ci ndox ci saasi mu ni calab calab calab yëkkatiku daal di tóor tóor ci saasi ñor yàlla daal di inspiré la filature mooy métier mi ñu jëkk a ci kaw suuf te xawaa la yàlla inspiré mu commencé di ëcc buum bi wëñ bi di ko ëcc ba mu def bopp bi mu daal di indi aadama ni ko mais yéen itam nag yàlla mën a seetaan doo ma jàpp ne yàlla daal di inspiré aadama métier rap moo tax ñaari métier yooyu moom lañu ñu jëkk a ci kaw suuf aadama commencé di rap daldi di rabal benn sër bu ndaw xawaa mu teg ko ci kawam daal di koy rabal benn sër bu ndaw mu daal koy teraxlaayoo ci dënnam daal di ràpp moom itam benn sér bu ndaw teg ko ci awraam moom aadama daal di ràpp ñaari chapeau kenn ku nekk sol kon lislaam fu góor ma sa taxawee jigéen ju baax a ngi taxaw ci wetam waaye ñu laaj Ibnu Abbas ni ko waaw ñaata at la aadama ak awa am àjjana mu ne ñi fa am diggante julli tàkkusaan ak julli timis ci waxtu ajjat te borom xam-xam yi bi ñu seetee diggante waxtu tàkkusaan ak waxtu timis ci waxtu ajjana biñ ko indee ci waxtu àddina bi trente ans moo tax danoo defe ni suñu waxtu wi ñoo waa barsàq noo ko bokk ne déedéet waa barzaq ñoom waxtu tënku leen espace temps tënku leen tënku wuñu ci waxtu yi moo tax saa boo leen gisee saa boo gisee ku nekk barzaq la muy waxal yow mënoo koo delloo ci temps mënoo koo delloo ci espace moo tax mag ñi nag respecté julli takkusaan ak julli timis respecté nañu waxtu yëpp waaye ñaari waxtu yooyu lañ ci gën a respecté am na sax ñu wax ni julli takkusaan mooy salaatul wusta am ñu wax ni déedéet mooy julli timis wax ni takkusaan ak timis mooy salaatul wusta maanaam ci takkusaan la tàmbali ci timis la yàlla waaye rek la gën daal mooy yàlla nee na nañu góorgóorlu ba fonk waxtu yépp nee na gis nga ku dul julli suba doo am leeru kanam man taraka salaatu subhi fa nee na ku dul julli leeru kanam nee na ku tisbaar doo am wërs ci waxtoom lañu wax de waxuñu bàyyi gi na ku dul julli tisbaar ci waxtoom nee na sa wërsëg du bari nee ku dul julli tàkkusaan nee na sa sa yaram du wér nee ku dul julli timis ci waxtoom nee na say doom du ñu am meññant maanaam du barkeel nee na ku dul julli gee nee say nelaw du jaar yoon ndax toujours rek sa conscience ngi lay rëbb Sëriñ Tuuba dégg naa dafa am benn nit bu faatu ñuy yuuxu mu ni waaw lu xew foofu ba ñuy yuuxu ñu ni ko nit a fa faatu mu ni eh nit ku faatu koy warul nit warul jar nit du yuuxu ku julli te ku tëdd te julliwul gee moo jara yuuxu kon loolu nga xamante ni mag ñi daanañ ci sonn lépp ñu di ko jàng ci yonent bi di ko roye sunnaam ndax moom musul noppalu ci kaw suuf li mu def yépp mi ngi ko def ci juróom benn fukki at ak ñett soixante-trois ans bi mu amee quarante ans ci lañ ko yónni yónnent gi yépp 23 ans fukki at ak ñett la woote mag ñetti at la woote ci roq daxwatu sirriya woote na trois ans di nëbbutu fukki at mu woote ko ci daawatu jahriya woote na fukki at ci feeñ soog a dem Madinatul Munawwara am fa fukki at lépp di 63 ans ci biir 63 ans yi 23 ans yi ci la woote nga gis ni kon dundam yëpp bi ko yàlla ne doxalal ak léegi amatul tànk bu muy jéggi bu dul ne ci li ko yàlla woo rek ci la nekk jullit war ko ca roy ndax ba mu demee Madina defe ne day noppalu ñu somb ko ca ñaareelu at ba mooy xaswatul Badr ca ñetteelu at ba di xaswatul Uhud ca ñeenteelu at ba di xaswatu bànni nadir ca juróomeelu at ba di xaswatul xandax wala laxza ca juróom benneelu at ba di sulxu xudaybiya ca juróom-ñaareelu at ba di xaswatul xayba ca juróom-ñetteelu at ba di fatxu makkata ca juróom-ñeenteelu at ba di xaswatu tabbu ca fukkeelu at ba di xàjjatul widaa waaw kii fu mu nopp kii fan la nopp nga di taalibeem la bëgg a def sa diine lal ak ngegenaay nelaw rek fa tabaarakallaahu mu ne du mën a sotti te li muy woote ñëpp ngeen wax ko léegi sangu jikko yi mooy ragal yàlla ndax ci ragal yàlla moo lay yóbbu ci borom te wax na yonent bi ci alquran ni ko waxal sa taalibe yi ni man araada al ilma كبغ خمطة فليتق الله من الرجال يالا لتخ واتقوا الله ويعلمكم من أراد الرزق فليتق الله لتخ ومن يتق الله يجعل له مخرجا wa yarzaquhu min xaysu laa yaxtasib yàlla nee na ku ragal yàlla ma jox la wërsëg ubbil la bunt ay xéewal di ca jaar xéewal koo munta tàkk nee na waxal yonent bi ñu wax sa taalibe yi ni leen man arada taysiiral umuura fal yattaqillaaha ku bëgg say mbir yomb ragalal yàlla ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا نانا يونتي وخال سا طالبين من اراد التوفيق لمعرفه الحق من الباطل فليتق الله كيف كو بغ يالا ديفال لا توفيق بوي خامي دغ نين كوكو توفيق لا xàmmee dëgg ak neen kooku tawfiix la yàlla nee ku ma bëgg na na na ragal yàlla in tattaqullaha yaj'al lakum furqaan yàlla nu yonent bi waxal sa taalibe yi ni man araada najaata fil axirati falyattaqillah ku bëgg mucc yowmal qiyaam na ragal yàlla lu tax suma nu najji lazina ittaqu yàlla bi yonent bi waxal sa taalibe yi ni leen wa man araada jannata falyattaqillaha ku bëgg àjjana ëllëg na ragal yàlla mu ni ko lu tax mu ni ko tilkal jannatu lati nuurisa min ibadina ñooñu kat kaana taqiya Maodo ni ya man yuri dul jinan al khuld yaskuna waaw kan mo bëgg aljana ju eternel mu sax mu melni serigne pap jog dañ ko man ma mu ni ko faqat di man talabal miftah doktara ya man yuridu jinan al khuld yaskuna wa wa fa khadiman dara mi tooy aji maa ngi kan moo bëgg àjjana ju sax Serigne Pape ni ko maa mu ni ko nag a jiital caabi bala ngaa fii kenn du fi joxee caabi caabi yaa koy àndaale mu mel nañ ko laaj ni ko lan mooy caabi ji mu soog nag ci bopp buntu bi وواجب الطاعة وواجب الطاعة الهديمة وقته كذاتبة الزيات من الأمم على نبي وعلي أجمعين صلوات ربنا دائما عام بصحبه mooy caabi ji mooy sopp yonent bi ak topp yonent bi bi nag xaw na jafe Maodo invité la ci gàmmo gi jàngal la ko rek sa xol daal di commencé jublu ko sopp ko rek nga am caabi ji te sopp moo tax yàlla waxaat yonent bi ni ko waxal sa taalibe yi leen ku ci bëgg nekk wali na ragal yàlla wa man araada an yakuna waliyan lillahi falyattaqillah lu tax ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كل يوم في conversation بوبو يالا دي واخ دي يونتي نانكو واخ كو سا طالبي دي ما دغلو جليتي دي لا دغلو داغي يك ني كون دال يالا راغال يالا رك لا دينكالي أن تقوى الله هي وصيته تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله نانا يالا بن دينكاني رك لا دينك ني جيك ني اك ني مujj ني té moy ñu ragal ko ragal yalla nak bokut ak ni ñi ragalé gaynde wala jaan dédé danga koy ragal ragalu sopp waaw te muy nga rus ko yàlla kenn du ko ragal ragal gaynde boo ko ragalee ragal gaynde boo koy jaamu ci korwe lay teg mais boo ko soppee boo koy jaamu ci jofeel lay teg la rabiatul adawiya waxoon borom bi rabiatul adawiya xale bu jigéen la woon fu ne jaar na fa lu ne def na ko prostituée la woon te fi mu nekk mooy bàjjinu nitu yàlla yëpp xëy rek li ko yàlla soxlaatuma góor yow laa soxla poñe yàlla invité ko ci benn amour fa isa saxa min kal wudd fa kullu hayinu yàlla ni ko ah lu tax mu ne ko wu kulli la si fawqa turaabi turaab ba Maodo di ko tàccu ca kaw Cheikh Ahmed Tijani di ko tàccu ca kaw Cheikh Abdul Qadir Jilaani ko tàccu ca kaw Serigne Touba ko tàccu ca kaw ngi koy wax jigéen ju tedd bi fi ànd ak borom ma xanaa xamoon ni martaba bu góor di yëg tariqa bi rek jigéen di la ci bañ ko laajee Cheikh Jafaas ni ko ci ban martaba la jigéen du lii mu ni nubboo ak wilaay ak ak xutbaani te ngantul jigéen a tax nubboo moom faat na góor ak jigéen a ci yem kon xutbaani yaa ci des te jigéen mas na ci toog muy Sayyidatuna Fatima nekk xut nekk na xut bu zaman six mois après son moo jëkk nekk xut bu zaman ginnaaw yonent mu ni kon yàlla moo wax yonent bi di ko waxal sa taalibe yi nañ leen déglu nga déglu ma def leen ay personnalité céleste mu ni jikko yi nag bi nga ci war a jëkk incarné yàlla ko wax yonent bi te mooy i'dilu nee na ku bëgg a nekk personnalité asamaan nee na na nga maanu al adlu nag bokkut ak qist maanaam justice bokkut ak équité soo amee sa ñaari soxla kii jur fukki doomu juróom kii am ñaari doom nga ni kenn ku nekk dix mille francs laa lay jox dépense juste mais équitable ndax ku ne xam na ni fukki nit ak juróom la koy dundal dundalul ñaari nit kon da ngay seet liy dundal fukki nit ak juróom nga jox ko ki jur fukki doomu juróom dépense seet ki am ñaari doom la koy dundal ñaari doom par nga jox ko ko dépense su boobaa nag am nga attulu am nga est alquran ni bu ngeen bëggee am personnalité na ngeen euh, gis naa ci benn anecdote xaw ma dama ko dégg xaw ma du dëgg la xaw ma du dëgg nee na waa ji dafa am ñaari jabar jëndal kenn ki basin ki ci des mu jëndal ko xam naa brodé xaw ma leneen nee mu ñëw ki ci des dal ci kawam ni ko benn kii si nga waroon a jënd nangam naan te dangaa war a yamal leen mètre yi te kii dafa tuuti ki ci des rëy nee mu ne ko d'accord indi ma delloo ko nee na mu dem delloo ko nee na ëllëg sama war a jënd ay dàll daal di jënd même pointure bi mu ñëwee kii rëy dante ko lu tax te koo ko doon gaas mu ne baax ah, yaa wax ko yàlla yemaliwul yàlla moo tax ku bëgg a yemale foo koy teg Cheikh Al Ibrahim Niass radiyallahu dafa am nit bu doon contre tariqa ni ko a yi te yàlla nit mënut a gën nit El Ibrahim Niass ni ko. mais lettre bi bi ñu koy bind gisoon nga naaj bi te teewul ci kër gi nga toog te yàlla bind kër gi bind naaj bi lu tax doo ko woon ci naaj da ngaa xam ne kër gee gën naaj bi waaw lu tax nga takkal ko naaj wee kër gi te mënoo koo nangul nit alquran ni i'tilu na ngeen maal yàlla ni yonent bi waxal sa taalibe yi ku ci bëgg a nekk personnalité wala taxtadu bu leen exagérer gis nga ëpp mbaax waaye kun la benn nga ni ko fukk doo nekk sang mukk yalla nee na yonent bi waxal sa talibe yi ku ci bëgg nek personnalité wala taxaw fil ardi mufsidina buñu ñu ak yàq ci kaw suuf gis nga jullit day defar waye du yàq même lu defar ko sokko net wala nga noppi yàlla nee na yonent bi waxal sa taalib bi ku ci bëgg am personnalité asamaan wala talbasul xaq bil baatil gis nga dëkk lu mu metti metti jël fet lu mu neex neex tegal ci suuf waaye doo doo nëbbe neen dëkk dëgg benn nitu yàlla da laaj ni ko iblis di nga faral di am oto mu ne waaw am naa oto mu ne ko lan mooy sa oto mu ne ko mauvaise conscience njort lu ñaaw mooy oto bi may véhiculer samay message mu ne ko ndax am nga chauffeur wala yaay dawalal sa bopp mu ne am naa chauffeur ñu ne ko kan mooy sa chauffeur mu ni mooy ki fekke dëgg noppi loolu ñu ragal ragal waxal dëgg waxal dëgg wax dëgg du gàttal fan bu xañ a wës yàlla nee na bi wala taqaf maa laysa laka bihi ilmu nee ku ci bëgg am personnalité nee wax loo xamul bul def loo xamul gis jullit balaa wax na vérifier li muy wax ba xam am ay source yu wóor soog ko wax balaa jëf na xam lu ci yàlla àtte mais kenn du wax ci làmputu kenn du jëf ci làmputu wax naa nga ñun la ku la ko wax nga naan damaa defee wala xamatuma ku ma ko wax mais kooku jullit du ko def yàlla nee na bi waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité wala tamshi fil ardi maraha bu muy dox ci kaw suuf ci bëgg am personnalité ci bëgg am personnalité linnaas bu kenn di rëy rëylu ci kaw nit ñi bu la ko alal jaral bu la ko juddu jaral bu la ko xam-xam jaral ñu ma ciy wax benn barki démb ni benn xale dafa am benn xale bu mu woo yónni ko nee na benn mag ni ko waroo ko woon a yónni yaa ko mag mais waroo ko woon a yónni parce que nangam la sant xam nga kooku ci aada la taxaw taxawul ci xaqiqa te yone wax yonent bi waxoon ni képp ku bejjaaw ci lislaam yàlla rus na yàlla nee képp kuy rëy rëylu nee ma génne la sama kër rëy man rek la ci ak ku la mën a jox bul rëy rëy ak loo mën a xam bul rëy rëy ak loo mën a am bul rëy rëy parce que xamoo ci yan loxo ngay mucc yàlla nee na yonent waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité waqfit janaaxaka lil muminin na nga am kersa ci jullit gis nga jullit dafa war a am kersa ci borom waaye mën a jàkkaarloo nit wax ko lu la neex ba pare dem naan ndox mën a jàkkaarloo jullit def ko lu la neex ba mën a pare mën a dem tëdd nelaw war nañu seetaan seen jël nee na amal kers xamoo kers du du du sëgg nii déedéet kers mooy loo bëggul ku la ko wax rek doo ko wax loo bëggul ku la ko def rek doo ko def moo tax nit dina rus ba rus boppam moo tax am na ñoo xam ni mën ngaa dem ba gaañ leen ci wax gaañ leen ci def waaye du ñu réagir ndax yàlla ak seen kersa yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe bu ci bëgg am kersa waqdud min sawtika na wàcc baatam buy wax nee na baat yépp baatu mbaama ma ci gën a soof yàllaay wax de ñu ne ko lu tax mu ni mbaam fa kàddoon àgg jom ja dafa àggul gis nga mbaam bu ŋaaxee fii boo toll ci boulevard ci la ci kër gi dana ko yóbbul waaye di nga ci sonn coono bu day ni bi sonn moo tax mu ne mbaam fa kàttam ak jomam dafa am yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi waxal sa taalibi ku ci bëgg am personnalité waqsid fi mashika buy dox na def ndànk ah waaw moom sunu yaay bopp ji fa tabarakallahu ajaa uray buur yaayu daara ji waay waay waay waay yal na ko soox déwén te déwén dàq ren waaye xale yi tàccu leen seen maam ki xam nga ne am na ngant kii lay ndur tabarkalla turus ndur kii xam nga ne am na am kan? na ngant am na ngant waye sopp yonent bi sopp sayyidul haji malik nit la mu magat rek lol lay xam fa tabarakallah diine rek la xam tariqa bi rek la xam hadra sayyidul haji malik la xam moo tax mage geeg wéradi geeg yëpp wallaay bu toogoon Dakar itam jot wàllam ci gàmmu gi wallaay bu ñëwoon ba ci kër gi mu toog néegam itam jot wàllam ci gàmmu gi waaye mu ñëw jàngal nu pour ndaw fi ne am nañu fi toog ñoo xamante ni xam nga luñ doon fas yéene naka lañuy def ba rocc ku dem tëdd sëñ na bu gañe gi mii ci la bokk faf maamam ñëw toog amatul pex yii yëpp ay leçon waaw mag moom ci jëfam lay jàngale du wax fa tabaarakallaahu ñu ñaanal ko yàlla yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité واعرض عن الجاهلين نما ونال غناو ignorant غيسنا ان ignorant دنجكاي ignorer كو خمول دار كو واخا نوم يا كو توي يالا نينا يونتي واخال سا طالب بي كو جي بغا ام بيرسوناليتي واخو نيكو خذ العفو وامر بالعرف ku ci bëgg am personnalité nay accepter lépp lu raisonnable ku ci bëgg am personnalité nay commander lépp lu convenable yàlla nee na yonent waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité na jëfandikoo idfa billati hiya ahsan bu la sa mbokkum jullit def waxee defee lu ñaaw yow jañe ko lu rafet romb na la bañ laa nuyu yow jege-jege lu ko ne ko asalaamu aleykum mi ngi séddale sote la yow booy séddale jëm ko jox mi ngi jooyawante yow ndax bañ laa gis yow jógal nga dem siyaare ji dañu wax ni trois cent soixante vertu yàlla jox alquran yonent bi jox yàlla jox yonent bi ci alquran ku fexe ba am ñetti jikko incarné nga trois cent soixante jikko yëpp yonent bee ñu ne ko ñetti jikko yooyu yan la mu ne ku la xañ nga jox ku la dog nga jox ko ku la doon nga baal ko yomb na xamul mais baadoo la moom ko ah diw day xaje lay dina xam ne maa ko gën di xaj Serigne Cheikh Tidiane si xaj yi day gën a bari de solution du mas naa ko dégg ci Serigne Abdoul Aziz Al gàmmu digg ray la ko doon netti nee na waa ji dafa rendi nagam xam naa am koo xam ne jubluwu ko nee na muy la nag wi ba waa ji ñëw di jël palaat wàllam nee na mu dagg taatu nag bi jox ko ah waa dara mu dem yóbbu këram ñu teg ci ay jour moom itam yàlla wërsëgal ko nagam mu rendi nagam toj ko daal di ñëw leen jël ah xam naa fàtte na li mu def mu daal di indi boolam mu siggi xool ba ko yow nag xam nga sa wàll ci nag bi moo tax la yàlla nee na bu la lu na jañ rafet yàlla nee na yonent waxal sa taalibe ku ci bëgg am personnalité na jëfandikoo ud'u ila sabili rabbika bil hikmati lépp looy santaane ci yàlla wala nga di ko santaane ci yonent bi wala nga di ko ji ci pénc mi na nga ko teg ci sagesse waaye bu ko teg ci autorité xanaa xamoy li sagesse man autorité man même bu la yàlla dénkoon pouvoir ñi ngi yilif koo ciy jëflanteel jëflante la moom ci sagesse waaye bu ko woon ni ko maay sa kilifa sagesse mën naa def lu jullit lu ne waaye boo autoritaire ku la fa waroon a bàyyi dana la fa bàyyi yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe ku ci bëgg am personnalité laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal aza bu ñu yàq seen jëf ju baax ji ci kàddu ginnaaw aw daje woog sa waa ji mi ngi noonu génn budul woon ak man mu toroxate fii daal la ñëw di jàngut ne aat bu fa man li ma yoroon sax moom laa ko mujj jox ñàkk nga sa alal ñàkk nga sa tuyaab waaw moo xam kër ga moo xam dépense moo xam koy dimbali ci faju yaram la boo xam ci gàmmu gàmmu gi am na ñoo xamante ni même boo boo ci defee buñ ko waxul tamit te buñ ko waxee mu yàqu ñi ko defal man nañ ko wax mais yow boo ko waxee mu yàqu parce que ko dégg ci Serigne Abdou mu ni benn taalibe ci xadara bi xaw ma lu xewoon Tiwaawan nee na mu yónnee fa toni ceeb nee na bi ñuy wax ba tey kenn déggul turam nee na mu téléphoné ma ca xaaju bunt ni li ma leen dimbalee ci ceeb te ba tey dégguma sama tur sëñ Abdou ne ko bu subaak jàmm ñëwal jël si sa ceeb fekkee loolu la man danoo defe bi nga koy def yàllaa taxoon nga di ko def mais bu fekkente ni rek naa na fi nangami toni ceeb kay jël si sa ceeb yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité wala tàkkulu am waalakum baynakum bil baatili bu leen lekkante seeni alal ci naxante nax nit lekk alal yàlla nee na ba mu am mukk même doom ji nga même doom ji nga dégg ngeen ci sëriñ Abdou mu nettali nee na Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour si taawu sëriñ Cheikh maam soxna asukan dañ na mu ni ko te nee soxna asukan dafa seweeroo sëriñ Abdou nee na soxna asukan jigéen la joo xamante nee dafa seweeroon bu lay dóor mën na laa dóor indi sax nee benn jour sax dama mujj tàkk ci kaw ñëw fekk ko mu ngi jublu penku ci saalu sëñ Babacar Si di laasi nee ma ñëw dal ci kawam fekk ko muy laaj nee na ma jonkan ci wetu fauteuil bi di ko xaar nee bi mu paree ñaar siggi xool ma ni ma Aziz lan la nee na ma ne ko yaay naka ngay juree doom ba pare bañ ko yow da nga mu bañ nee na moom muuñ ni ko Abdou Aziz bañu ma leen dama bëgg ngeen gën ñett mu ne ko buur bu yàgg buur bu sa moroomu jullit sax bu la dénkee alal war ngaa veeye ci alalam ba delloo ko nan la ko dénke waxuma laa buur bu day ne yàlla dénk la lu day ni nit war ngaa góorgóorlu ba boo ko koy delloo mu mel nan la ko joxe waaye di xool sa doom ba mu yàq ci sa loxo looy wax sa borom nee na Serigne Mansour nag comme xam na jikkoy maam da leen di tere jël lu ñu moom nee na mu jàpp ci loxo sëñ Babacar ba ci beñee bu soxna asukan teg nee na mu ne ko maam Babacar mu ne mu ne ko dama bëgg nga jëlal ma ci lii ndax su ma ko jëlee sama maam daf may dóor nee na sëñ Babacar mooñ ni ko yaa ah, Mansour yaa ngi may def loolu ma mus sa def de man musumaa jël yëfi jàmm yar bi muy yore ci biir mbooloo moom lay saxoo saa yu métti ngir bët yàlla di ko sëppoo tax na du ñëw fii lu dul yoonoo ko baate bi ko bari ba mbay mi fi nekkoo ñi yor la la fa gi ko moom lay saxoo saa yu wiital ngir bëgg yàlla di ko sëboo tax na du ñëkk lu dul yoonal. lépp lu waa dañuy ñaanal. suppi bopp yi la ñu ko bëree li fi nekkoon. yàlla yoroon di laa bëgg yootaan. ñëpp ci moom. musula fecc kollere musula doon ay mbokk wax lu amul bañ na loola leen baade di ñaanal axa xalifa bay li fi nekkoon yaayoo di ay bu daan ci kaw taaxam Tiwaawan fàq seetaan mu mel ni gan si biiroo mos may loola tàcc leen ko ah waaw moom moom mooy borom télévision Wilane TV defe woon naa ne filmé rek la man waaye ndekete mën naa gàmmu gàmmu gi ah lay ndeysaan <laughs> yal na yal na jëme télévision bi kanam ba àddina yépp jot ci nee yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi ni ko waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité naa tanaabazu bil alqaabi bu kenn jéem a dénigré sa morom ak di ko jëw ci bët ak di ko jëw ci làmmiñ ak di ko wooyu tur wu dul turam yii yépp yàlla daf ko tere jullit yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe yi bu ci bëgg am personnalité laa yasxar xawmun min xawmin bu benn jigéen reetaan moroomam bu benn góor reetaan moroomam ndax nee na xamoo ki ngay reetaan ndax ëppale ko alal wala nga di ko reetaan ndax ëppale ko xam-xam wala nga di ko reetaan ndax bokk ci famille bu ñu xam te moom bokkul ci famille bu ñu xam nee na xamoo ba xam moo la gënam déet ndax gëneel nekkul ci am xam-xam ngëneel nekkul ci am alal ngëneel nekkul ci am juddu famille bu ñu xam bokk ci famille bu ñu xam wala famille bu ñu xam yàlla xam ki gën nee na inna akramakum indallahi atqaakum maa leen bind ngeen di ay tribu ak ay nation na ngeen xam ni mun leen a gënante ci deret ki gën a ragal yàlla rek ci moo gën moo tax affaire kast yi ñuy wax amul benn aadama ñoo moo jur nit ñi aadama géwél amul aadama géer amul benn aadama am te moo jur ñëpp kon boo dëkk bëggee dëkk ci ay waasu mais ci aada nga nekk wax dëgg yàlla Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Fatimi nee na ñaar ku ko wax nit di nga dem sax di wéy sama di wéy sama teg ko ci waas ngeen baal ma ci kàddu bi ndax ci tur wala jaar nee na boo nee diw dëgg ma nee na kenn sax Maodo bind moo tax bañ ko laajee ca ndar ne ko Maodo loo xam ci ku ñuy tooñ mu ne tekk ba ci yàgg mu ne ki ñuy tooñ ak ki koy tooñ su ma ci naree ker bi yàlla naa ki ñuy tooñ ndax tooñ lislaam bëgg ko ngor bëgg ay genre aada yoo xamante ni day tas dëkk yàlla ni yonent bi waxal sa taalibe yi ku ci am personnalité wala yaqtab ba'dukum ba'da bu leen di mooy wax gannaaw nit kàddu boo xam ne bu wax sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mu baax ma nag daara wax ni ku ñam jàkkaarloo di nga xam ne jëw a dàq surtout naa Aïcha mas naa ànd ak yonent bi benn timis benn xale bu jigéen romb ko Aïcha siggi xool ko daal ni ah kii de robbam bu ëpp bii yonent bi ni ko danga ko jëw mu ko jëwuma ko li ma wax dëgg la bi dafa ëpp mu ne ko bu ko déggoon du ko neex doonte la dëgg la comme du ko neex daf ko ci daf ko jëm te yonent bi nee yërlu naa safara yéen jigéen yi ngeen baal ma xam naa bokku leen ca mu ni waaye jigéen a fa ëpp nee na ma laaj ki yore safar ni ko waaw jigéen ñi lu tax ñu ëpp safar mu ni ñii ñooy toroxal seen jëkkër ak di jëw toroxal sa jëkkër ak di sew la wàññi dépense sax ci toroxal ko la ko mu jox la lu doy nga wàññi dépense am lu doyul nit war caa añ amut lu mu lekk da nga toroxal sa jëkkër yonent bi nee jaar gi ma jaar safara jigéen ña fa ëpp nee na bi ma laajee directeur u safara ñu leen lu leen ko yóbbee mu ne ñii ñooy toroxal seen jëkkër yi ak di jëw ak di jëw jëw jëw mën a jëw yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe yi ni leen bu ñu bëgg am personnalité wala te jassu bu leen di yëddoonte yëddu moom ngeen di wax espionnage waaw yëddu sa téléphone borom kër yëddu sa téléphone jabar buy wax ak nit nga sànni sa nopp tirer attention commencé mal intentionné ba xëy stressé yaa rey sa lu ci sa yoon la waaj a defoon benn jabar bi bu aayee néegam rek mu jaar ca ginnaaw di yëggu ci fenêtre bi ba xam lu ñuy wax ki muy yëggu ñu ko mais kii waxal ci moom yow sax ko aayee ci sama néeg bi rek muy yëggu mu ne ko dinaa ko faj mu ne ko ah, dangay wax rek mu ne ko dinaa ko bàyyi benn jour mu aayee mu ñëw yëggu ci fenêtre bi waa ji ne ah man de jaaxle na waaw man nag laa koy waxee ci guddi mu ni ko lan mu ni ko papaam dafa faat rek mu yuuxu daal di daal nit ñi jëkkër ji daw génn fekk ko mu daanu ci gannaaw fenêtre bi di yuuxu mu ni ko mu ne ko yow ma bàyyi woon la jëndee la andi fi mu ne yàcc di ko xool mu ni ko sa bàyyi deewul bàyyil fa leen am jàngoro bi ñuy dëgg wala tajassas waaw bu leen di espionnante yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité na fexe ba jëfandikoo ijtanibu kasiran min zanni na fexe ba mu am mauvaise mauvaise conscience nit dafa wara rafet njort ci mbokk rafet njort ci yalla waye ah dégg na ko muy déeyaate de xam ci man lañuy wax ah la wax de bu do kané sol maa koy sol wala bu don kastan ma koy sol té lolu bu njëkkoon ci xale bu jigéen dañ ko daan xol mais légui sax jigi goor ñi ak seen sikkim ak seen bejjaaw légui dañ koy tuddu détail yoy détail nit dafay rafet njort waaw dafay rafet njort waaw même bu déggee kàddu bu ko choqué na ni ah wax dëgg yàlla taxul ma di ko wax waaye lu nit wax nga moomale ko sa bopp waaw kooku da ngay rey sa bopp yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité wax ko ni bu udxulu fi silmi kaafa na adhéré ci jàmm jàmm gënu ay jàmm gënu ay bul cultiver mukk problème bul cultiver mukk ay foo fekk jéem ko fay di wax jàmm ku bëgg a yëkkati ay nee ko tegal ci suuf foo dégg ñaar ñu xuloo doxal guddi fekk ba ñu juboo ñaar ñu werante nee leen xajul seen diggante di ko def ci daayira bi di ko def ca association ba di ko def ca mbootaay ga di ko def ca jàkka boo dee góor bi julli ji di ko def ca marché ba boo dee commerçant di ko def ci biir kër mais dal na yonente bi ak sayyidatuna Ummu Salama Sayyidatuna Umu Salama jabaru yonent bi la woon dañuy wax ni mosuñu gis mukk jigéen bu am taar comme Sayyidatuna Umu Salama mais dafa magee woon bi ko yonent bi di jël indaale ay doom yu bari sax yonent bi julli ci jàkkaam ba pare taxaw ak Sayyidatuna Umu Salama di waxtaan ci timis gi noonu rek fekk Sayyidatuna Aysa jóge woon xel xaw a guddi si rek gis mu taxaw ak Sayyidatuna Umu Salama te wujjam mu gës loxo yonent bi kii bu dul woon jigéen bu man jigéen ak tukki ndax dana jabar la may jabar lu tax sang bi di doxalee nii waaye dafa dem tëju néegam une semaine di xalaat wax lu tax Muhammad mel ci nii Aïcha dem ci ba yëg ni ndekete polygamie aadal monogamie mooy xaqiqa couple naka xaqiqa yaa xam nag ñeenti jabar yi nga ci am kan moo ciy sa couple mais couple bi mooy xaqiqa ndax il avait onze femmes yonent bi amoon na fukki jabar ak benn mais ñoom ñëpp muñ dañu d'accord ni Aïcha muy kump la donte le am na Xadija ay doom te daf ko wax parce que Sayyidatuna Umu Salama bi mu ci xalaatee une semaine yëg ni nekk polygamie aadal couple mooy xaqiqa mu mu convoqué une réunion ci néegam wax bu jëmi ni leen su ma mayul Muhammad mu organiser amuuram ak Aïcha kër gi dana tas te bu kër gi tasee lislaam bi dana tas ma bëgg kenn ku nekk coppati ci sa relation may Aïcha may Muhammad pour ñu am légitimité pour organiser seen relation amoureuse xanaa kii am na sagesse xanaa kii am na mbaax ba mu ko waxee Zaynab ni ko li ngay màggata tax nga di ko wax man Aïcha magi wu ma dara dama ko ci defanteeg moom ba mu neex mais Aïcha pànk la était là, elle était la plus intellectuelle de son temps. Moudjik organise une conférence de presse qui est là. 70 000 personnalités ont défendu défendre la cause à a l'intimité des dames qui l'air, qui m'ont même consommé ce matin comme il a essayé là. C'est une nous a dee leen ko jële ci xale bu tuuti bu xonq bii lu ma xam-xam na ko loolu nag danaan déranger ñoom Zeynab mais Zeynab yàlla jox ko atu ndax Zeynab yàlla ko may yonent bi ci asamaan yi mu xëy ne Aïcha ëpp léewu dara yow sa baaya la may yonent waa Màkka ko seet man yàllaa ma may yonent bi ca asamaan malaayika yi di ko seet ay saxaaju ndax boobu mënu ci dara ñëw ci yonent bi wax ko yonent bi ni ko ah, boobu nag moom ay sa dëgg la boobu moom tànnewuma la ci yàllaa ma jox Zeynab ci asamaan yi juróom-ñaar malaayika yi di ko seet bi Sayyidatuna Fatima mii doomu yonent bi bu jigéen di wujjalee yaayam ji fàttu ak Aïcha ñiy influencer trafic d'influence xam na am na ñoo xamante ni bàyyi wu ñu weer ci benn fan ñëw ci Fatima ni ko sa góor gi daal Aïcha confisqué na dund ak dematul dikkatul waxatul ak toujours mi ngi ci kanamu Aïcha ci kanamu al Aïcha Fatima commencé mer ni day day waxi dëgg papa yàlla mi dara tawul ñëw fekk yonent bi jël boppam teg ko ci penku Aïcha la automatiquement mu ni mais nit ñi wax nañu dëgg bi mu ñëwee ni papa yow laa soxla Aïcha daal ni ko kon naa leen may ngeen waxtaan mu ni ko déedéet jërul ngay jóg ndax li ma ko laa yow la te boo demee dëgg dama lay jëw demal du ma jëw daal di ko papa mu ne mënu ko nit ñëpp nee nañu xale bu tuuti bi confisqué na sa dund rek ñëpp ñàkk wax la ko naqar yëpp moom Sayyidatuna Fatima te ku yonent bi sopp ku yonent bi rusul mais bi waxee ba pare benn baax na ko tontu Aïcha am satisfaction Fatima am satisfaction ndax dañ ko innaha sadiqatun li abibi mu ne ko li nga wax lépp dëgg la mais Aïcha c'est une copine pour ton papa Fatima nee na keroog laa mës a bég ndax am confirmation ni Muhammad ma jur ndax diw diwu ko jur ci sànni yaat yi la bokk mais bokkul ci yàqi ni yaat am na shérifa bu jógee màgg seet ci sëñ Babacar Sy fii ci Tiwaawan Serigne Cheikh Tidiane Sy boo ko nekk shérif bu jigéen nee na sëñ Babacar Sy présenté ko ni sëtu yonent bi nee na Serigne Aliou di raam ba jege ni ko yow sëtu yonent bi nee na xale bu jigéen bi sikki xool ko xonqaayam ak taaram ni ko macha mu ne lu tax macha allah ko sama yaay war na sama bàyyam de diw diw ma jur lu yàq la ko la ko waxoon waaye ànd ak doomam ni ko mais bi mu ko waxee Serigne Aliou Guèye dafa yuuxu ni ko billahi chérif mu ne ko lu mu ne ko majesté bi nga waxee moo tax koo fekk kuy dóor na nag naa man doomi diwa diwa <laughs> am na lu la dese am na lu mais Aïcha nee na laa am confirmation ne Muhammad man dama jur ah, Fatima Aïcha it ne laa am confirmation ni je suis une pour ah, Muhammad benn kàddu defar ci crise moom sallallahu alayhi ku tey la woon ku amoon sagesse la woon boobu bu ñu xooloo eh yow lu ci sa yoon doom rek addina tukki. dafa wax xaqiqa rek mu jeex tàkk yàlla ni bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa taalibe bu ñu bëggee am personnalité xayitum bi taxiyati fa xayu bi axsani ku la nuyu nuyu bu rafet na nga ko nuyu bu gën a rafet sa mbokku jullit nuyu la ci kàddu gu set wecc nga di ko fayee bakk xaraam na mutu la yàlla nay sa doom yàlla nay sa taalibe waxuma laa nag sa nawle yàlla nee na waxal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sa taalibe ku ci bëgg am personnalité wa bil ihsaan nañu rafetal jëmal ci seeni waajur yàlla nee na yonent bi sa taalibe yi ku ci bëgg a am personnalité wasil qurba wal yatima nañu rafetal jëmale ci seen mbokk yi leen jege nañu rafetal jëmale ci jiw yàlla nee na yonent bi sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité وأطعموا البأس بائس وأطعموا البائس الفقير nañu dimbali ñi nga xamante ni dañoo ñàkk ba sonn bokkut ak baais baais mooy ñàkk bu métti ba ës mooy rayante waaw bu fekkente ni ci luxa arabiya boobu différence lañu yàlla nee na yonent wala tatabaddalu xabiisa bi tayyib waxal sa taalibe bi ci bëgg am personnalité nay weccee lu ñaaw lu rafet diw toog ci benn grand place léegi ñu tudd la fa mu wax lu ñaaw jóg de ka nga wax lu ñaaw ñëw toog yow ñu tudd la fa yow waxoon lu ñaaw mu wax moom la rafet ci waaye diw ni mu baaxee nangam nangam nga ne eh yéen ñi ko xamul yéenay wax noonu da ngeen ma koy laaj maa ko xam te xamul ci moom tus da nga sew rek yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité wa atul yataama am wàll ko jëriñ li ñu doon na ci seen bàyyi te màgg guñu nga dencal leen ko nanga ko defar nanga ko war a defaree bu ñu màggee nga jox leen waaye trahir sa doom bàyyantee bàyyi ko alal nga lekk ko dem uti beneen góor ànd ak moom lekk ko sa doom màgg di taxawaal waaw di nga ko lay ci biir safar yaa góor nga nga àndaloon di ko lekk yàlla nee na waxal yonent wax na yonent bi ni ko waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité anfaqu naa ko li ma leen jox ci wërsëg nañ ko dépenser ci lu dara ah quatre heures jot yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa taalibe yi ku ci bëgg a doon personnalité waxulu xawlan sadida bu demee bay wax na yëg ni waxam am na njariñ su amé njariñ mu wax bu amul njariñ na noppi xanaa xamoo ne li ngay bëgg wax bu ko nit waxé sax bokk na ci personnalité jëratul ta di ko wax kooku mooy xawlan sa diida waaw waaye comme ni ko diw waxé mënuma cee ñàkk bañ a wax may ma ma sànni ci kàddu kaddu kenn du ko sanni wax dafa cher kenn du ko sanni dañ koy tëral kumu arranger nga jël def ci sa poche kumu arranger won nga jéggi ko jall kaddu kenn du ko sanni yàlla nee na yonent bi wax sa taalibe yi ni leen ku ci bëgg am personnalité wa xuulu naasi xusna nay wax ci nit ñu lu rafet bii dina sëñ bay bay si Mansour joxe woon daaw defe naa ne wa xuulu naasi xusna xawma daaw jéem pour ñoom fuñ ñu joxoñ rek gis ci joxoñu yàlla rek lañ ñuy joxoñ te awoon kii sañu ñoo joxoñ feneen fi yàlla joxoñ rek ak yonent bi yàlla nee na yoon bi wax sa taalibe yi ci bëgg doon personnalité wa taawunu alal birri wa taqwa na ngeen di dimbali ci mbaax ak ragal yàlla parce que ndimbal bu dëgguwul ci mbaax ak ragal yàlla complot moom sax la indiwaat waaye wala taawunu alal ismi wal udwaan bu leen dimbalante ci bàkkaar ak noonoonte dimbali nit pour mu noonu nit kooku koy dootu ndimbal complot yàlla nee na yonent bi waxal sa taalibe ku ci bëgg am personnalité waxfazu aymaanakum ku ciy giñ li muy giñ na ko def yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa taalibe yi ni ku ci bëgg am personnalité wa awfu bi ahdillahi isa ahadtu képp ku jël kóllëre sa digganteeg sa borom na matal wëllëre li kóllëre la suñu digganteeg suñu borom jaarale ko ci suñu loxo sëriñ muy Seydil Hadji Maalik moo tax bu jotee lu mu metti metti ci wér lu mu metti metti ci ñàkk jot

li ngay jaay da nga koy peser wala da koy natt wala da koy mesurer nee na na ko def à sa juste valeur yàlla ni yonent bi waxal sa taalibe yi ku bëgg a nekk personnalité wazinu bil qisti bil qistaasil mustaqim ku ciy peser na ko teg ci balance bu waaye bu mu sàcc calebasse toujours muy daanoo ci sa côté muy ëpp ci sa côté boo dee mesurer boo waree mesurer un mètre mesurer quatre-vingt-dix centimètres nee na du yokk sa bénéfice ci perte la lay jëm ba ci waxtu liggéeyukaay ñun la huit heures ngay xëy wàcc dix-sept ci sa bureau ngay xëy neuf di wàcc 16 heures wala 15 heures waxtu woowu usine danga koy fay ci sa bàmmeel bala nga jékki siraat kay di ko fay dégg naa Sidi Hadj def na ko benn taalibeem fii fu doon liggéey ci gaar bi ay côté yu midi rek mu ñëw toog Maodo génn mu nuyoog moom Maodo ni ko ah xanaa tey da ngeen a liggéeyu mu ne ko axakay waaye dama la nam ba muñu la ko muñu def ma ne balaa patron bee ñëw naa sàcc ñëw gis Maodo ni ba ëpp naa def na waxtu bi nga fi am soo demee bu ngi liggéey ba ñépp wàcc na nga toog ci bureau ba lu ne dom fii ci làmmiñu Serigne Abdoul Aziz laa ko nangu kooku xam nga ni jël loolu kenn alal ah koo xamante ni waxtu jàmbur sax boo ko jëlee bu ko yëgee ni la delloo kooku dina la jëlloo alalu jàmm kooku dina la nax loo nit gis nga sëriñ kenn du ko tiitaroo dañ koy roy sëriñ kenn du ko toppandoo dañ koy roy toppandoo sa sëriñ caricature la mais roy ba caractère yàlla mi yonent bi waxal sa taalibe ku ci bëgg am personnalité kunu ma sadiqin na nga bokk ci ñi ci wax mais boo waxee fukki wax juróom-ñeenti yëpp di ay fen bu ñu ko lijjanti kooku du ko def yàlla nu yonent bi waxal sa taalibe ku ci bëgg am personnalité aw fu bil nga al ahd kóllëre goo booy jël ak yàlla la waaye al uqd kóllëre la booy jël ak nit nee na bu mu ci mante dee na ko respecté yàlla ni yonent bi waxal sa taalibe yi ku ci bëgg am personnalité kunu xawaamina bil qisti shuhadaai lillahi walaw ala anfusihim na ngeen nekk ñu juste donte le acte bi ñu lay atteloo boo waxee ni mu amee ñu jàpp ñun ñëpp dégg nañ ci làmmiñu Alaaji Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu mu wax ni yatu dëkk bu waree dal ci boppu Alaaji Malick dañ ko ci dóor déggu leen ko a dégg ñun ñëpp dégg nañ ko ci làmmiñ mu ne bu waree dal ci bopp soxna Safiyatu ñag nañ ko ci dóor waaye nga bëgg ko dóor ci jàmbur mooy ko sa sëriñ wala sa xarit yàlla nee booba xaraam na mutlaqan loolu de mooy quarante vert yi alquran tudd di def une personne à une ñu dend nag ñooyu ñëpp siyaar ñëpp ci guddi ndokkeel ñëpp baalu ñëpp ak ñaan ci barke gàmmu gi yàlla yàlla wéral ñépp ñaan ci barke gàmmu gi ku dem soxla bi la jaaxaloon bi la gënoon a jaaxal yàlla na la ko yàlla fajal na ko bëgg bu dee góor ñi ñi di bëgg ay soxna yàlla na ne yàlla jox ay soxna nañ ko bëgg bu dee jigéen ñi xale yu jigéen yi ñi ci bëgg ay sox ay borom kër yàlla na ne yàlla jox ay borom kër ni ko bëgg bu dee suñu yaay yu tedd yi seen njaboot yi ak seen wér bu yaram moo leen intéressé yàlla yàlla barkeel seeni njaboot yàlla yàlla wéral seeni yaram bu dee daayira bi yàlla ko yàlla téyel boppam bu dee marche bi amee sunu tarbiya yàlla ko yàlla téyel boppam Ahmed noppaluwul ba mu juddoo dama koy xool muy wax di ñàkk mooy delloowaat ginnaaw ci ak ndawam ñu ko daan teg lu metti ba ma jàpp ni waajuram juru ko dañ koo dégg aw sàkkal boole rek ci la màgg ba toll nii ah. amee noppalu wallaay dama koy yër yàlla yàlla guddal sa yàlla yàlla fay la li nga jàngale li nga wax nii ñi ko dégg ñëpp jàng ci buñ ko demee nañ ko appliqué buñ ko appliqué na leen suñu borom fay bu leen fayee na la jox sa wàll foo foo jaar rek yoon ba ngay gone ko fii nga toll noppal woo benn te doo am naa ni doo noppal dafa am lu ñu teg te mënoo koo teggil sa bopp waaye yàlla na yan bi xoyof sa waajur bi ñu dëdd bërki dem yàlla yàlla yokk leeram na fi yàgg loolu di ko ñaanal ñii yaakaar ci yow yàlla bu seen yaakaar tas yàlla bu seen yaakaar tas ku gàmmoowul gàmmoo ngeen yàlla ngeen ëpp yàlla bu ñuy fay yàlla na ngeen jëpp man sama xol dama yoo xamante ni ñëw ma juru gàmmu doon ñëw pour rek dellu parce que dañ may yónni ci yeneen gàmmu tey dama toog ma ni man damay dem Tiwaawan bi ma ñëwee ma woo Zeynab mu ma ci Ahmed lay ñëw ma toogee am na ku ma wax ni ma ma toog am na ku ma wax ni ma Ahmed mii de dafa toog fi ba ci yàlla daal ni li ma li ma tarbiya su fekkee ni yàlla nangul na ma ci na ma ñi nga xamante ni samay wëllëral mm-hmm. ñëpp yàlla naa leen gis tey mm-hmm. ma bokk ñooy dama maa jiitu man ma nekkoon xale raamandoo raam ci kanamam nekk ci keppaaru alaaj tijaan mu nekk sama maam te ku ne xam nga maam ak sët kenn du ma jege kenn du ma moom la ma jox mu dalal ma baax kon wóoruwul na ko waaye dafa soxla nag ñaanal leen ko yàlla amat yàlla nga gudd fan yàlla nga gudd fan te boo guddee fan yàlla nga wér boo wéree njariñ la ci ñun ñii ma nekkal xam nañ ñoom ñi ñëpp xam nañ man dugguma ci dara caaxaan dem moom fenn kenn xaw ma ci lenn su ma jëlee micro fii laa ko jëlee ci yow su ma waxee fii laa waxee wala yónnee mooy tax jotaay bii si li ma ci toog borom loolu moo toogoon fële laay toog laa ko waaye yow foo toog ma toog fa fu ñu la filmé filmé ma luñ la wax wax ma ko luñ la def def ma ko te lépp lu ñu la sa kaw ma taxaw ci kanam. mu dal ci man soo jërëjëf seede bi am na solo waaw ah, am na solo tabaarakallahu am na solo eh, yàlla yàlla barkeel la yow itam ndonol maam yaag bàyyee yàlla ko yàlla bàyyee ci sa loxo tabaarakallahu kontaan nañu lool di gàmmu sa cousin ñëw say cousine ñëw say mbokk ñëw ku rakyat bak andak jago jeyep pakai tabarkal konak a ah, yang ya warna def ñaan ñu yëkëti jotaay bi te xam naa ne am nañu lay kon nga may ma rek ñu bëgg jël tariqa bi ñëw ma jox leen tariqa bi bu ñu paree nga ñaan ci jotaay bi su ko defee yéen njaboot yi sunu wayjur di leen di te abonné ci seen chaîne te sant njaboot yi abonné leen ci seen chaîne benn bi mooy Wilane TV bi ci des mooy Marche TV tabaarakallaa waaw lépp suñuy enseignement ak suñuy orientation ak suñu wàllu tarbiya moo xam Tivaouane la moo xam Dakar la moo xam feneen la Dingiraay ak feneen ñoom ñoo koy génne fa tabaarakallaa kon ngeen ñaan ci sëñ Abdou ngeen ñaan ci bu baax a baax te boo demee nga ko góor mu ñaan ci tabaarakallaa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 اغفر لي ولعبادك الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ سيد أحمد التجاني ولي الله يا الله